am na ñoo xam ne bu ñu sañoon toujours dañuy taal rek de bu ñu sañoon àddina bi dara lu ci sedd toñ kat ña ko gën a def nag mooy ñu gën a ñàkk jom ndax ñooy bu tàkkee ñu daw waaye dëgg ki nga xam ne moom wóor na ko ne bu tàkkee du da du daw kooku du taal dara waaye koo xam ne saa bu tàkkee mu daw ndax bu fekkente ne dangaa nekk ci barab sa lépp nekk fa nga ne kooku doo bëgg mu tàkk waaye bu fekkee amoo fa dara moom saxtu wu nem na ngaa tàkk su tàkkee nga daw ne cëpp fale kooku nag du ngor du jom yàlla na nu yàlla musal ci loolu kon nanu jàpp bu baax am fulla ak fayda te ku nekk di xalaatal sa bopp te ñu bàyyi ñu yi tamit information lu am solo la ndax diine daf ko reconnaître bu baax yonent yi yonent yàlla Moussa bi nga xamee ne làmmiñam dafa dagg dafa setul woon dafa ñaan yàlla mu may ak mu defal ko ab yonent mu nekk Aaron kooku kon am na fu mu teg bu baax wax wante wax it noonu mu mën a jariña la na mën a lora inna alladina yuhibbuna an tashia al fahishatu fi alladina amanu kooku tamit alxuraan moo ko wax bu fekkee ne dangay ngay tamit te informé bu wax saa bu ne mën naa jekk mën naa indi aw ay kooku alxuraan daf laa tëkku ne ah, mbugal mu rëy moo la ciy xaar ëllëg loolu itam ñu di ko bàyyi xel du nit ki lu ko neex rek wax wax sunu borom daf ko fonk maa ngi wax ab laay Mbaye mën ne ko yéen ñi nga xam ne da ngeen a jàppe seen bopp di wax kë ca gën a mën a wax wax ju ñaaw sax ñaari moo ci gën a mën a moom la ci gën moo ci gën a mën a moo ciy gën a sonn doo ko fekk mukk mu tedd kay wax wax ju rafet te xolam nekk ca loola lu mu lu mu lu mu mën a mel rek kooku la yàlla di gën a euh, feex feexal xolam kon ngeen di bàyyi xel yu demee noonu bu leen dugg ci lenn kii bu leen bu leen kenn mën a jaxase kenn kenn ku ne na seet nit ki la ci baax rek mu di ko xool euh, euh, li ci des lépp nag. sëriñ bi moom fàggul nañ ko sëriñ bi fàggul nañ ko da ay waxiin la am na ñu koy wax di def lu leen neex waaye du noonu sëriñ bi fàggul nañu mooy teg na la ci yoon woo xam ne loo def yàlla dana la ca fekk waaye nag sëriñ bi fàggul nañu goo xam ne la neex def fu la neex dem loola neex wax kooku sëñ bi duggut ak loolu yàlla am am rus naa yàlla mos sëñ Tuubaa rus na muy tere dara mu di ko mu di ko mu di ko mu di ko digle moom bu ko ko mayoon sax du ko def lépp lu sun lépp loo xam ne yàlla bañ na ko xam leen ne sëñ Tuubaa da ko ciy dimbale waaye du ko du ko du ko bëgg bu ko ko mayoon du ko def kon nag yéen ñi ànd ak moom it ngeen rus ko ci loolu di jéem a lu ci lu baax lu ngeen ci def rek baax na waaye bu leen kenn mën a dugal ci lu dul loolu dérapage yi yéen bari na ngeen baal ma ci wax ji waaye dafa am diggante soo xam ne fokk nga wax ndax coow yi bari na eh, fu ne nit a nga fay jaar di waxi nit di dugg ak nit waaye yooyu yëpp amul solo sëñ Touba kenn kenn du ko jaxase ak yàlla lu la ci waaye mën a wax it moo yàlla bu ku ko bëgg a jaxasee teg da tàggale ko da ngeen ko lijjanti fi bala ngeen ko bala bala moo génn fii ndax lim def lim daj ci boromam sonn ci lu ne mu def kooku yàlla defal ko lu ne ba noppi ku ko bëgg a yàq fexe ba jaxase ko moom bu yàlla doon mën a jaxase kenn ba te jaxase noonu ko sëñ Touba ndax muy bëgg li nga ne sëñ Touba lee la loolu ay waxi caaxam la rek na ngeen góorgóor lu ngeen mën ci jaamu yàlla su ngeen ko defee lu mu tuuti tuuti rek ngeen sagale ko bu ëllëgee mu bañ a am lu muy lu muy rus ci kanam boroomam kon ñoo ngi leen di jé sant bu baax ñoo ngi leen xam ne matal ngeen kóllëre ndax sëñ Mourtala bu ko defee itam ndax borom xam-xam yi dañoo wax ne kóllëre euh, def matal kóllëre ci ginnaaw nit lu mu tuuti tuuti tuuti moo ëpp matal ko sax ci kanamam te lii bu fekkoonte ne sëñ Moutalla xam xam lii ngeen def dafa ko doon defal dafa ma ko doon defal man kon ba tey defe naa ne jeex na waaye moom yàlla la gëm sëñ Tubaay loolu ñoom waa kër sëñ Tubaay loolu la ñu xam ñi ngi gërëm bu baax it nag ñi fi nekk yëpp di gërëm waa Air Sénégal ni ñu ko waxee di yëg nañ ne tamit am na xew-xew yi amoon yëpp ñi fi gëmoon ñii di sunuy mag di sëñ Isaax ñoom waa sëñ Bachir sëñ Abdou Khadir yëg nañ bu baax ni ñu loon doon soññee ci bés bi bés bu baax ndax du bisu Maamoor du bisu keneen ñoom ñëpp ak ñëpp a ko bokk bisu Sëñ Tuubaa la na ngeen ci góorgóorlu jàpp bés bi boobu e, ñëwatee am na ci ñu ci jóge ñu sori waaye lu mu sori sori ngeen fekkee bés bi ndax bis la boo xam ne benn la fi te boo demee Amérique gis la ñuy def Nations Unies te lu mel nii la nga xam ne dafay fees dell ci saal yi gën a mag te loola ñoom américains yi réyal ko lool. ah kon ngeen xam ne seen bés bii yi ne bés sëñ Tuubaa ci réew mi kat du lu du lu waay ndax amuñ am ndax eh, payug yàlla rek mooy wane loolu te beneen ñeneen nit amuñu ko fi bari na ñun jàpp ne ñoo jiitu ci lislaam wala ñoo xam wala ñoo weex wala ñu dugg fii te loolu lépp ak ñàkk fayda la waaye lislaam sëñ Tuubaa dafa jël responsabilité am ne moom yàlla ak yonent bi bu wéyee jàpp na ne kenn waru ko ci jiitu te loolu it mooy fulay nit nag nit buy nekk ci mbir day jàpp da koy jàpp da koy jàppal boppam seet ba mu doy ko mu nekk bu ca nekk it mu seet la ko ca doy waaye ku sol as mbubbam su weex nga sol sa mbubb weex ñi nga xam ne dañuy def ëppal ci diine defe nga ne soo solee as mbubb su woyof rek wala nga sol sa as kii rek loolu mooy diine bu dee addis bu dee benn addis nga yokk ci beneen bu dee addis nga gën koo sax ëppal ci loo xam ne yonent bi wax na lu nekk waaye wax bari na lu bare bare bari loo xam ne itam li ëpp ci addis yi daanaka waxu ko dañ ko ko waxal rek bu fekkee ne loolu ci li nit di baase ba lu ne mu dugg ci lu ne mu wax ko lu ne mu woyofal woyofal nit ñu baax ji jàpp ne loola te yaa ngi koy royee ci nit ñoo xam ne tekki woon dara loolu lépp ëppal na ci diine ak ñàkkal sa bopp fayda yéen loolu lépp di leen ko ni ngeen ko xam na ngeen am seen dignité bopp am seen personnalité bopp ci seen diine ku ngeen gis la jàpp ne moo leen war wax moo leen moo leen war a dimbale ci jën yéen a ko war a dimbale kon ñoo ngi gërëm maire yi kilifa yi autorités yi yëpp di leen san di leen ñaanal di ñaan yàlla mu def fi jàmm monsieur le ministre ñu ngi leen di ñaanal di leen di leen gërëm ñu ngi gërëm taalibe bi yëpp di gërëm bokk yi fi nekk yëpp it asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu

براني الخدوس من أمراضي وأسكن الأنصب في أغرابي